D'abord, Wanyan, vous avez la parole suivie de Pape Djibril Fall. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, nous sommes venus avec collaborateurs. Parmi vos collaborateurs, Manki Ragné, c'est mon ancien professeur, Monsieur Ndiaye, qui m'a enseigné les mathématiques au sein du lycée de Darou Moussi nit compétences ngi lay euh, aussi le président de la République Bassirou Diakhar euh, premier ministre Ousmane Sonko monsieur Ousmane Sonko ak membre gouvernement bi projet de ñu indil ñu ñu indil nga xamantene ci ne euh, ngi li institution au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique sociale et environnementale nga xamantene ne si ne ku ne xam ne ne ay institution budgétivore lañ euh, man nak projet de loi bi dama koy voter dama koy voter parce que c'est une euh, c'est une demande sociale une exigence du peuple dama koy voter tamit parce que 15 parce que 15 milliards par an 5 euh, ans yi à peu près mu ngi nekk 66 milliards xaj na ci département Kébémer ndax département Kébémer dafa manquer ay tali Macky Sall président Macky Sall ak waa këram bi ñu fi toogee dégg nañu ay tali ay route secondaire au sein de la commune de Darou Moussi mais ba tey gisaguñu dara benn mètre goudron mosu ñu ko fa yëkkati. Euh, dama koy voté parce que ba moment bi may waxee ak yéen lycée bu maam bi Birahim Mbacké de Darou Moussi ñi ngi def ay collecte de fonds pour mën a construire ay sale de classe te loolu moo am ci trois. Euh, cas de tout-petits un petit département ci département maire. moi am ci école élémentaire bu Colom nous amuñu euh, ay hôpitaux yu baax amuñu soxla nañ ay ambulances petit département formation accompagner financement euh, président de la république respect ci institution bii di assemblée nationale ndax bu ko neexoon mën na consulter article 51 de la constitution bi nga xamante ne si ne moo permettre mu euh, mu jàllale projet de loi bu mu mën di nekk au référendum yéen nag nee ngeen doo leen ko voté wante man li ma jaaxal ci seen ay kàddu wax ngeen ne projet de loi bi fi mas a ñëw da ngeen ko voté projet de loi amnistie portant amnistie nous votons que le 6 mars 2024 mon est que pire des projets te da ngeen parce que da avons a projet bi daf couvrir nervi yi ngeen doon recruter ñuy maté askan bi projet bi daf ko ngeen voté ko le 19 mars 2024 fi voté ngeen fi projet de loi portant euh, pension des anciens euh, députés nga xamante mo permettre ngeen mëna am ay indemnités de retraite à partir de 55 ans euh, euh, euh, variant de 110 à 115 Nga xamantene si ne ku ci retraite ta am 55 ans di nga am di nga mëna am plus de 900 000 francs kon yi lolu yeen lay wané na rek yeen seen intérêt personnel kessa mo len fi baye mais askan ngeen bëgg nek fi nak di mëlefe di ndax askan mi mais mënu len nak kenn président de la république euh ngeen euh institution bi nak di au conseil des collectivités territoriales da ngeen xam ne seen ay ak euh, ñaari institution da ngeen xam ne seen ay nit ñoo fa nekk ndax aminta Mbengue ndjay mom mo nek ci bop ACCT euh, euh Abdoulaye Daouda Diallo mom mo nek ci bop euh, conseil économique social et environnemental président de la République Bassirou Diomaye jaxar fay nak ñing koy féliciter ak membre ak premier ministre Ousmane Sonko ak membre gouvernement bi yëpp ndax biñu togué ci 5 ans kessa la toll ta ciéb bi wàññeeku na dëwlin wàññeeku na sucre wàññeeku na ciment bi wàññeeku na

dëkk baa ngi sedd wecc benn caniveau fattatul monsieur le ministre de la justice nag dafa am benn question bu ma lay laaj fonds euh, euh, Covid 19 ñi nga xamante ne si ne ñoom ñoo détournoon 1000 milliards yi du Covid enquête yooyu fan ngeen ci toll ndax askan bi bëgg na ñu édifier leen ci ñu ngi laaj ndax bu fekkoon tey ji baral ngeen enquête yi ndax waa dikk waa waa waa cour des comptes am na ñu ñu épinglé woon ci seen ay éléments la ñu bokk. Euh,